encore une fois ñoo ngi toog kii bi nga xam ne mooy Pawlish nekk maanaam doom si kii di Bijou Ngoné Pawlish jaale si nga xam ne nii sa maam la kàddu ngay waaw ah, maa ngi jaale Bijou ñàkk na kum dul amati ci àddinaam ñàkk na reenam ñàkk na gàllaajam ñàkk na koo xam ne ci mooy léppam ci àddina man xam naa ci dara du lekk du lekk te yaayam lekkul du naan te yaayam naanul. ñu bokk même kër Bijou génn néegam dëkk néegu yaayam nga xam ne loolu mbëggeelu yaay la nga xam ne sa yaay day dem du alal la ko téye du kër gu rafet du kattan du dara nga xam ne sa yaay jii day dem mënoo ci dara yàllaay reye yàlla xool ni ko nee mu def ñàkk waajur la gën a métti ci ñàkk yaay waajur dafa rëy sa papa boo ko ñàkkee dina la mais yaay mooy reen kii la ëmb juróom-ñeenti weer benn bés nar koo rey soo ko ñàkkee du la neex xam ne ki la tey moo dem ki la nàmpal moo dem ki la dugal ci àddina moo dem ki xam xamal addina moo dem soo feebaree mu tekk say nopp moo dem soo feebaree du lekk soo feebaree xelam du dal boo tukkee moom rek mooy laaj egg nga boo bu sa biir méttee biram day métti bu sa xool tàngee day mer lu la mere mere yaay du morom ci àddina tan boo ko ñàkkee ñàkk nga ko du dabadi ci àddina ñàkk na ko xam ne doo ko abadi ci àddina di ko ñaanal sunu maam bi yal na ko yàlla xaare àjjana piitu jar naa yërëm ku ñàkk yaay ñàkk papa jar naa yërëm kon yaa na ko yaa na yaayam yaa na ko yàlla xaraa jële bu dee fonk waajur la ak yërëm waajur ak teral waajur bu doon alal la ko fi bàyyi du dem de bu bëgg dooma ko fi bàyyi du dem des fois nit a gi dem di bàyyi njabootam xamul lu fi bàyyi des fois nit a gi génn àddina mu xam ne man damay génn àddina mais ay njabootam moo tax du mënta dem parce que mu ngi leen di kon kooku bu demee ñàkk nga ko xam ne doo ko amati ci àddina des fois nit nekk ci sukuraat fukki juróom benn weer heure bu naree génn àddina bu xoolee ay doom rek xelam day ñëwaat ci àddina parce que bu leen a bàyyi mais yàlla mooy xool ko neex mu def mooy reyee mooy xool li ko neex mu def kon ni sunu yaay jeen ko yàlla xaare àjjana di di jàllale message benn message boo xam ne dafa ko jàll ñun nutu soo biis yi tey bu sa waaju deewee bu sa waajur bu sa waajur génnee àddina bu dee cofeel gi nga am ci moom bëgg gi nga am ci moom yu bëree bëri nañ ko maytu yu bëree bëri nañ ko maytu ci dëj yi muy da ngay ñëw ci dëj di xool li lay jaxal di xool li lay jox di xool li lay kii te nga sa yaay ji génn àddina mu indi la ci àddina xamal la ci àddina mais léegi dëj dañ koo jàppee business dëj dañ koo jàppee ndawtal dëj dañ koo jàppee teggi da dañ ko jàppee turu famille dëj dañ koo jàppee ñi indi ay jaxal 2 millions indi ay jaxal cinq millions am na ñu bari ñoo xam ne ñi ngi naan ah am na ñoo bari ñi naan man mii ñi nekk nit ñoo xam ne am na ñu bari du ñaan seen yaay génn àddina bëgguñ sax seen ay gars am na ñoo xam ne seen yaay bu génn àddina benn jooy la ni jooy di xaar retour bi jaxal yeeg ci am yeeg déedéet ki la mu juróom-ñeenti weer bu génne àddina amal naqar ba ba juróom ba amal naqar à vie parce que sa yaay la moo la indi ci àddina moo tax nga am kër moo tax nga am moo tax nga am kër moo tax nga am lépp ci àddina moo tax nga am lépp ci àddina bu sa yaay génne àddina reculer nga xam ne yaay du morom na nit ñi bàyyi xel loo am am am am bu la joxoon ay jaxal 60 millions billaahi wal bés dina ñëw di nga xalaat sa yaay xalaat boo xam ne xaaj bi da koy fàtte nga xam ne dee am na mais obligation la. loolu moom na nga ko laaj oustaz parce que du ma oustaz jàng ma daara alxuraan. mooy ñëw ci dëj bi tey waaw la war war. waaw xam nga man affaire jaxal du ma ko xam parce que jàng ma alxuraan xam nga ni da xam man daal jaxal ci àddina laa ko fekk te fii laa ko fekk mais nit bu la joxee ñaar fukk téeméer ñaqam la la jox nit bu la joxee dërëm ñaqam la la jox parce que dee du business. dee du yii parce que dee la yéen xanaa xamoo dee mooy laas takk say loxo say sa bakkan ay carton loo am alal alal alal alal juróom ñaari perka lan lay sange parfois bu 500 lan lay parfois lu mu rëy rëy rëy rëy mën ta weccu 200000 parfois lu mu rëy rëy 500000 la ut la te xamoo ba xam dina la xeeñ wala du la xeeñ nga xam ne dee du caaxaan nga génn àddina tey li gën a rëy tey xamoo ñett fanu bàmmeel kenn xam ko ci àddina ku xamul Serigne Sambay nee na ku xam ñett ku xamul ñett fanu bàmmeel ni mel suuf loo nee defal nit ñaa ngi nekk ci showbiz bi def leen neex nit ñaa ngi ci internet bi def leen neex dee dee nekkul business am na boo xam ne dañ ko jàppee business la laa war a jaareen biisu la laa ko war a jox ak ñii ñëw di tàppanteeg ñëw di reente am na ñoo xam ne ñi ngi sax seen yaay ci taxaw du leen neex am na ñoo xam ne ñi ngi sax seen yaay du loolu la jox ci àdduna du leen saf yaay du caaxaate nan xam ne dee du caaxaan li yëpp day jeex ci àddina man nga ko xam tey xamoo kii ñu suul tey xamoo lu muy fekk ci biir yow nga nekk ci ci dëjëm di def lu la neex di kafak di reetaan di tàppante nga xam ne dëj léegi dëj dañ koo jàppee léegi dëj dañ koo jàppee turu famille léegi dëj kenn amatul amatul impact bu mu amoon amatul benn hectare amul impact bu mu amoon amatul ci àdduna xanaa xamoo dëj ba lay ba lay suul tey ci jour dëj bi léegi nit ñi di daanu di jooy amatul kenn ku jooy di di nga ñëw ba dëj ba ñibbi doog kenn ku rongo jëm kenn ku rongo jëm tuuti ci àdduna ñu ngi jëwante da waxante lu ñaaw xoole kii la sol xoole kii ñaar la jaxal xoole ki lu mu takk ci eewam xoole kii non na te jàngkat yi tamit nañu xool jàng ñu te te yar rek tax des fois dinañ ñëw di jàng nax alal dañuy ñëw ci dëj di nax alal dañuy ñëw di jàng di wayaan ci dëj yi kii gaañu Seydina Muhammad nga doon tagg mais ki yaayam du gaañu ngay tagg yaayam di ko jàngale yaayam ak di jàngal moom ni mel ak déedéet nga nu tagg ki tax ñu gën a tagg muy Seydina Muhammad na jànkati xool li ñuy def day ñëw ci dëj jàppee ko tuuru pami jàppee ko mitin ki ki gaañu yaayam la ne kii di ko di ko jàng naan ko sa yaay jaar fii te yaayam jaarul fenn Seydina Muhammad a jaar fépp na jàngkat yi xool dëj bi muy ñëw xool sama yaay donc ko masaw yi ànd ak moom ci masaw dem ñibbi lii la ma ci leneen lu ma ci war a def caag yaay ak doom la parce que moom laa tuddee moom laa moom moom laa jox sama premier sama premier njëkki moom la kon nag yaay bu sax ci man la yaay boo xam ne la sax fekk na ma ci guddi fekk na ma lëndëm fekk na ma lépp muy metti moom laay gis muy neex moom laay gis kon sama yaay la. temps yii critiques na ci biir ci réseaux sociaux wax moom mooy kat mu ne moom képp ku ko tooñ marche ba marche lay wax. waaw nii xam ne tontu na la. na bay ba wax ci kaw lii rek waaw lii rek tontu la parce que nit bu yaayam gaañoo du ma ci mën a wax ci moom parce que dañ lay ne lii du affaire kaawu mbàccu du affaire kaawu soo bi lii dee la dee mooy laas. dee mooy mooy laas ci àddina kon nit ko bu dee deewee yaayam génn àddina amoo lay wax lu dul ñaanal ko yaayam xaaree ko àjjana li may wax ci moom ko parce que dee la man dee ma fi bu ma génnee nag ba génn ci dee bi ni commencé bi mais dee ma fi ne dee laay wax